tay nak bëgg naa ngeen baal ma de <laughs> tay nak moom duma ndax dama bëgg jàkkaarloog samay fans waa moo tax ngeen baal ma ma jàkkaarloog yeen rek ayca tubaarkàlla sant leen gërëm leen bu baax a baax yéen ñi safoo El Vision man sista Eva nag maa ñëwaat ci seen émission découverte tey découverte bi nag nee naa leen dafa ala daw mais macha allah parce tamit xale bi la lëmbe jamono moom la leen El Vision indil tegal leen ko ci table ji muy kan maman Aris maman nuyu naa la. waa fay naa la sista Eva. waaw maman damaa bëgg xam nag kan mooy maman Aris. waaw maman da benn soxna la. tudd maman sant Aris. sa borom kër lu muy nekk ci néeg bi yéen ñaar kese ngeen nekk nga ne da ngay génn di ko fi bàyyi pour la maman rek leen sa bopp kii sa jëkkër la. rek ma waxaat sa borom kër la dóoram xaj na ci. dóoru kan. moom mii taxaw. maman yaa taxaw fii ni nga ko ñu ay dóoram ak i rayam. ba kuus ko nii mu <laughs> eh. maa ngi dëkk Kër Massar unité 15. ok bëggoon na nga wax ma tuuti ci sa parcours mama jàng na wala jàng parce que dañuy gis ne boo joué ci sa théâtre yi da nga bëgg làkk tubaab te en général mooy loolu daal yu xaar rek lay doon. Eh, mënta nekk. Eh, eh. non jox ko ko. ci moom baax na. teel yow. aywa yi jël taxi nga génn sama kër ok. aywa reste. aywa na ma laisse pas tout seul. ici c'est toi. reste tranquille. xam ni muy def ak yow naa la bàyyi soo paree.

baax bëgg naa nga laay supporté. ndax Messi ah? kon neex na mala kii aussi tamit bëgg naa nga wax ma ban sama plat préféré. Mhm. yaasa bu am yàpp xar. ah <laughs> ma Aris ban année nga dugg ci théâtre. waaw man ba ma si duggee nag yàggul. Mhm. ndax 2017 laa si dugg. Mhm. no def ba intégrer ci da nga def affaire bi nek neex la nga dem dugg ci théâtre bi wala sax benn xarit mom mo la ci boole. non non nekul lool sax man suma ma suñu kër. Mhm. su may kaf ak nit ñi nit ñi dañuy reetaan ba tëdd daanu tëdd si suuf. Mhm. ñu ne ma yow da ngaa war a dem jouer ji ndax yaa ngi yàq xaalis man leen lu jot yomb xëy na sama deret la nekk. Mhm. waaye sama benn xarit moom mu ci dugal muy kajaa bari. waaw maman bëgg naa xam ba xam yow yaa ngi ci troupe théâtre wala nekkoo troupe. waa maa ngi Elvision bi Elvision Média. Mm-hmm. mais nekkoo ci benn troupe. nekkuma ci benn troupe. ok bëgg naa xam maman Aris naka la def ba ñëw rejoindre Elvision Média ak di di jouer ci série bi nga xamante ne moo lëmbee jamono muy nooy moytoo sa noonu. waaw nu ma def ba jouer si dama seeti woon sama copine bi Kaja. Mm-hmm. ma yendu fa bay waaj ñibbi si ngoon si. Mm-hmm. après awa Alain woo ma. mu ne ma kaay wuy si Elage. daa am benn série ba ñuy joué léegi daa bëggoon nga joué si ma daal di dugg oto ñëw ba ma ñëwee tamit ma joué macha allah mu jàll ngeen woowaat ma ma ñëw macha allah loolu moo ma indi biir Elvision. waa ñu gis ne joué nga série bii nga xamante mooy nooy moytoo sa noonu macha allah mu neex koor gi ñëw ñu def kooru maman Aris nooy moytoo sa noonu euh, maman naka nga dundee kooru maman Aris. waa ni ma ko dundee mbégte la. Mm-hmm. ndax macha allah ñun ñëpp bari nañ fi mais kenn amul lii daal mën nañ ma kaa def ku nekk di ma siis wala di ma def ay affaire mais defu leen ko macha allah neex na neex na ma torop waa neex na ma torop sax waaw bëgg naa tamit eh, nga wax ma lan ngay wax sa fans yi parce que tamit eh, yi en général day bari eh, ñu ngi nii di jàkkaarloo gars yi ñu ngi commentaire am na ñoo xamante ne sax tim mama la ñuy def nga wax lan ngay wax sa fans yi nga xamante ne dañ leen di dañuy lañuy béggee heure bu ñu dugalee sa téléfilm rek gars yi ñu ngi ciy commentaire di la béggee man saa yu ma yeewoo bu ma duggee damay jéem a xool xool yi ree bu bëgg a ni man nitu kese laa duma dara duma duma dara man nitu kese laa bu ma nit ñi bëggee nag bay commentaire si man kon yàlla la. ok kon yàlla la nitu kese nga maman aussi tamit bëgg naa nga wax ma sa diggante ak dëkkandoo parce que dañoo gis ci série bi da ngaa solo dëkkandoo la bañ na ko ba jox la tudd mais da nga ko bi tural ko dëkkandoo ba xam yow euh, dafa am benn haine bu nekk seen diggante wala da di jouer kese loolu laa bëgg nga leeralal ma ci. non benn haine diggante. Ah. Nena la jom comme sama mag buma ma bokkal ndaay ak bay ñen yeen ñëpp sax lay wax ndax kër gi neex na neex go xamantene ni soy def sax dang ciy bolé xol bu rafet ba loy def day dugg sa biir xol bu génné sa kanam ñu xamné li li ngay jouer deug la ci yow jom sha allah nee la koku zéro fat bala nga gis kanamam rétanam ngay ñëk gis rek daal di dee moo dara day ré bané say jotéw ma

waa nekkul loolu sax xam nga ñun biir El Vision la ñuy liggéeyee ba nga ne El Média nga jeexal wax ji ndax El Vision Média dafa ëmb lépp nekkul ne lii ñuy joué rek loolu lañ ma ne dañuy dem fu nekk di def lu nekk macha allah fu ñu nag ñu wuñu waaye li jubboo xëy na moo tax ku ñëw suñu biir it doo fa mën a yàgg ndax dañoo jubboo tellement que doo ko foogee soo ñëwee nag soo soo melul ni ñun mën ngaa rekkile wu bëgg naa aussi tamit maman nga wax ma lan nga mas a dund ci sa àdduna loo xamante ne metti na la nga xamante ne ñaanootaa yàlla dundaat lu mel noonu. waaw lu ma dund sama àddina nag loolu moom dama koy dama koy duggal sama biir xool rek denc ko ndax su ma koy wax sax mën na am émission bi yàqu waaye yàlla baax na. Euh, man naa aussi tamit nga wax ma loo xamante ne dund nga ko ci sa àdduna muy mbégte bu neex a neex allah ba nga xamante ne heure boo sañoon da ngay dund lu mel noonu. waaw man saa yu ma xëyee di yeewu sant yàlla wàccee sama tànk bi xool ne maa ngi nooy damay sant yàlla rek mbégte la loolu moo gën a neex sama àddina man lu ma waaye def tamit du lii waaye saa yu ma xëyee yeewu sant yàlla. damay fier sama bopp xam naa ne man dinaa am lu nekk si àddina su suma su ma defee ndànk bañ a bañ a yàqante ndax yàqante fajul dara. ok bëgg naa xam tamit ba xam maman Aris moom marié na wala amul jëkkër. waaw waaw amaguma jëkkër nag. amagoo jëkkër. amaguma jëkkër maman am na wala amul doom. musuma am jëkkër musuma am doom. ok ba xam maman am na ku muy génn nag am na copain wala amul copain. <laughs> waaw amoon naa copain sax waaye léegi moom amatuma rek. ok kon kuy fëgg mën ngaa ñëw. ok oh. kuy fëgg mën ngaa ñëw waaye na la fu la yëkkati. waa sama fan yi de dinañ wax macha allah rek. Mhm. bëgg giñ ma bëgg benn bëgg naa leen fukk. Mhm. ñoom ñoo tax may sonn. Mhm. ñoom ñoo tax may gën a def di rey sama bopp. di jouer loo xamante ne nii su génnee ñoom dina leen neex ñuy bëgg man loolu laay doxee waa surtout maa waa team mama nag macha allah maa ngi kontaan si ñoom lool góor muy jigéen ñoom ñëpp kontaan naa si ñoom di leen wax macha allah rek. ok bëgg naa tamit euh, nga expliquer Sénégal ak aduna bi nga xamante ñoom ñoo lay seetaan parce que en général boo joué benn rôle rek euh, ñu bari dañu yor esprit bi dañ lay xoolee ba xam yow noonu nga mel wala meloo noonu moo bëgg xam ba xam mama li muy lay mel loolu lay dund wala mama dund noonu. non non dunduma loolu. Mhm. xam nga olof Ndiaye dafa am lu mu wax. Mhm. ñetti mbir yi bokkul toj tipiku ak xotteeku. Mhm. te yaakaar naa ni xoote nañu yoon bi. te toj tamit kenn du ko jaawale xotteeku moo tax yére booy sol la rek buñ lay solal la boo suyee ba pare danga koy simmi teg ko nale meluma noonu macha allah. bu fekkee gaar yi ree foofu noonu ku dama lay wàññi comprendre. waaw noonu laay def ñu naan ku ree ma wàññi la ci. <laughs> mel ma noonu macha allah bëgg naa tamit nga expliquer téléspectateurs yi nga xam ne dañuy safoo El Vision Médias ba xam ci kooru Mama Aris rek euh, yi war nañ ko xaar ci Mama Aris. waa yemuma ci kooru Mama kese yéen yu gën a neex yi mu ngi ñëw te biir El lay xewee nee naa leen ku am connexion bu doy toogal jàkkaarloog Mama dinañ leen bégal ba àdduna bi yëpp xam ne bégal nañ leen. ok Mama. bëgg naa xam tamit eh, lii nga xamante ne joué nga ko muy nooy maytoo sa ban épisode moom moo la ci gën a marqué ban moo la ci gën a neex boo xamante ne émission moom ma ci gën a neex. mooy ba may joué benn femme. maanaam daal dafa maa yóbbu ci sëriñ. Mhm. ne sama xarit la liggéey ma. Mhm. fekk na nekkul sama xarit. sama àndandoo la ndax man dama doon xaritoog moom pour man damay jàppale ndekete moom moo may jàppale pour ma bañ a am doom boobu moo ma si gën a neex ndax dafa daw yaram. ban moo ma si gën a reetaanlu nag mooy bi ngeen bi ngeen di kii <laughs> bi ma leen jaxasee bi ngeen di xeex. bii saa si ñëw. yow daal naa ci kër kenn. waa kër gi ñëw mooy yow dee na la yet. ok maman tamit eh, li nga xamante ne mooy nooy moytoo sa noonu di série bi ba xam yow dund nga ci loo xamante ne metti na peut-être nga romb ci mbedd nit woo la wax la lu metti wala dund nga ci lu neex expliquer ñu ci tuuti. waaw. dundaguma ci daal lu metti lu neex daal maa ngi koy dund ndax fu ma romb muy oto fu ma mënti yéeg. baa ma dem si yi sax dañuy taxaw waa kii du mama nooy moytoo sa noonu waaw macha allah amaguma si lu ma metti ok maman bëgg naa nga leeral ma tuuti ci seen série bii di nooy moytoo sa noonu ba xam loo di répété la wala dara parce que heure boo leen ko tegee ci euh, chaîne chaîne bii di El Vision Média rek euh, dañ ciy jàngat ay actualité yoo xamante ne macha allah ay message yu am solo ngeen ciy véhiculer da ngeen di toog di ko répété wala du mu demee wuñu ndax ñun bu ñu woowee téléphone rek dañuy defal suñu yére rek macha allah ñëw suñ patron bi nga xamante ne moo ñu yor. di ñu wax lii ngeen def lii def. nan la ñu war a tamit nga ma ba xam maman yéen bu koor gi jeexee rek muy koor maman Alice ak nooy moytoo sa bi nga xamante ne jéewoon ngeen ko avant koor gi ba xam ci loolu rek ngeen di yem wala téléspectateurs yi nga xam ne dañuy safoo El Vision Médias euh, ba xam war nañoo xaar leneen ci euh, waa nooy moytoo sa noom. àddina dañuy xaar leneen nag leneen. ndax nee naa leen lii rekk lañu gis mais li ne ci biir mu ëpp foofu te buñ ko génnee géeju laan lay doon ku jug day tànk. waaw damay sant yàlla nag bu wér a wér a wér bi gërëm samay ñaari waajur ñi tax ma doon lii tey nekkaguma dara nag damay dama di ndaw rekk di soog a door waaw ñooñu laay gën a gërëm nag ak sama mag sama mag bu jigéen Xadi ak jëkkëram. Euh, ak jëkkëram Abdoul Saw di gërëm tamit sama beneen mag ami ak Moustapha Darame di gërëm Fatou di gërëm Kajatu Kuyaate macha allah xale yooyu nekk Pasu Caaroy di gërëm Alié ak Modou Gueye di gërëm tamit <laughs> Mama Kuyaate ak Moussa Diop waa di gërëm Asu ak jëkkëram Jaxat macha allah ñooñu jàpp nañ ci combat bi lool lool ak Satou Kouyaté waa ak maam jaara Seydi Ibou Ndour allah ñooñ bàyyiwuñu ma benn yoon ak Binta Bébé ñooñ fu ma jaaxlee ñëw si ñoom macha allah sama aajo day faju sàqamtuma nag ñu nekk extérieur ñooñ maa ngi leen di gërëm bu baax a baax ku ci mel ni Mouhamed Silla ku ci mel ni Fane ma ca ma ca Angleterre. di gërëm tamit samay samay mbokk yi nekk Europe macha allah Amérique fu nekk daal nit ñaa nga fa di ma bëggee di leen gërëm lool lool di leen sant dina wax kontaan naa si ñoom trop. macha allah ñooñ bàyyiwuñu ma benn yoon ak Binta bébé ñooñ fu ma jaaxlee ñëw si ñoom macha allah sama ajo day faju sàkkamtuma nag ñu nekk extérieur ñooñ maa ngi leen di gërëm bu baax a baax ku ci mel ni Mouhamed Silla ku ci melni ni fanjaay ma ca ma ca angleterre di geureum tamit samay samay mbokk yi nek europe masàllah amerique fu nek dal nit ñaa nga fa di ma di len geureum lool lool di len sant dina wax kontaan na ci ñom torop wa su neexul won tamit kenn du ko seetaan li ñuy def mo neex mo tax ñepp di ci xar seen tu bay di setan macha allah. ok ko gisandoo émission découverte nag maman Aris la seet si woon kooku nga xamante actrice la ci biir Elvision Média émission bi nu mu tudd sketch bi nga xamante ne moom moo lëmbee jamono duma tàyyi di ko wax muy nooy mooy too sa noonu tey nag maman Aris lañ seet si woon moom moo nekk suñu gan dañ leen di jox rendez-vous prochainement ak keneen rek. ñu eh, la seen coow lu bari li ci kër gi nii pour lan a mais wax na la dëgg yow de damay génnee kër gi ëpp na ba tey say dóor xañ na ci eh, na ba la eh. baba pampas la nii baba eh baba bi déglu sa jëkkër nan lay nekk ci néeg bi yéen ñaar kese ngeen nekk puudar laay defar ak kii bébé ewal bébé ewal yooyu noonu kuus la ba nga dëgg takk ci lal bi biberon yow waxal la titin nan laa doxal fa yow laay waxal sa borom kër la ko respecté ah yéen ñaar nu ngeen nekk ci néeg fii di waxtaan nga bëgg a ko fi bay pour la kii day beru bañ na ko gis nga bu ñu tëddee lal bi nii feesu ko. maman xoolal ma fontoo yaa taxawoon bëgg nga ko ñu la ko. xaw ma ne woon nii la mel ma toronte xaw ma ne woon nii la mel. moo ma toronte jël foto ma ko def ko tekkate du moom. daa génn kër Clara merci kii lu ma ko war a wax yow. <laughs> eh dama ko war a song